revue des titres ci Diaspora News TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci suñu chaîne bi lee dañ koy door ak journal bi di Le Soleil ci célébration de la nativité du Christ qui di monseigneur Benjamin Ndiaye nak nee dafa bëgg ben Sénégal bu jubo xol yi ak xel yi daal di ànd waaye tamit ben Sénégal bu paix justice ak li di yërmande waaye tamit mu ngi sàkku ci yi ñu élection présidentielle yi ñu jëm ñu am ay élection yu libre transparente ak inclusive journal Le Quotidien mom di wax ci candidature présidentielle présidentielle bi ñu jëm fale ca conseil constitutionnel nee na lu ëpp fanweer ak juróomi candidat ñoom déposé nañ seen dossier foofule ci loolu nag la Dakar Presse wax moom Sonko déposé na lii di candidature am daal di dribblé ñëpp moom nag ci loolu la journal bii di bés bi le jour daal di la wax ne que scénario yi Sonko teg pour prombeewam loolu la bëgg a décortiquer ndax Sonko dem na yóbbu candidature am sans parrainage citoyen waaye nag amaana mën naa jaar ci loolu nag nee attestation caution tamit foofule ci conseil constitutionnel journal bi di regard di wax ne que mom Sonko daal dina tek ben équation bo xamanteni a à deux inconnues ndax ki di Bassirou Diomaye Faye tamit déposé nañ candidature am ñu wax ci benen wàll muy ci l'observateur ak pouponnière bi nga xamanteni moy bu Ndella major Diouf nee nañu euh, six bébé daal dinañ fay décédé ñu suul clandestinement mom nak nee nañ mo doon signé lii di acte de décès à travers structure bi di SOS santé ki di animateur bu radio Safir FM bi nga xamantene mo doon sul bébé mom tamit mu ngi en garde à vue dañ koy jeexaale ko walu tagat yaram ak journal bi di record mom nee ak blessure yi nga xamantene ñu ngi am ci ay joueurs yi nga xamantene ñoo nekk ci tanier bi Aliou Cissé dafa jaxlé ndax tamit blessure yi ñu ngi bëgg bari lolu est-ce que du fausser programme wala dafa wara utiliser ñi di jeune yi ci walu lamb tribune sport di wax ci combat bi fi amoon ci dimanche bi diggante Reug Reug ak B52 bu Mbour ginnaw Reug rëg-rëg bi mu daanee kii ngi di Bombardier yóbbu ko à la traite moom nee na day viser kii di Modou Lo ak Boy Niang jàngeen jëf